jigéen yi yéen yéenay sama priorité ma waxoon ne bépp programme bu may def yéen laa ko defal. donc élection bi jot ma waxoon leen ne balaa 2024 dinaa fexe ba bépp nit bu jóg jógee ci commune du sote commune di dem defi échographie ma ne leen avant 2024 on aura une échographie dans toutes les communes du département de yaakaar naa yéen a ko wax tey macha allah tey la 2024. tey li may wax ak yéen dans toutes les communes am na échographie ginnaaw bu ñu leen seen santé ginnaaw bu ñu joxee échographie comme que yéen yéen a yor kër yi jot nañ nag ñu dugal dara seen poste moo tax ma am programme tabaxal leen benn centre boo xam ne dama ko tuddee këru jigéen ñi ñu commencé ko nag ma laxul waaye maa ngi leen di bëggal ne ren incha allah dinañ ci defaat yeneen ñeent